أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suratu huud tey ñu jël ñetti aaya mooy aaya 6 aaya 7 aaya 8 ñetti aaya yi sunu borom subhaanahu wa taala daf ñi ciy jàngal ñetti mbir ba ca jiitu mooy bayaanul xalqil akwaani wa illatil xalqi sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu def ñuy leeralal ni mu bindee àddina bi ak lan mooy illa gi lan moo tax mu defar ko bayaanul xalqil akwaan lan moo tax yàlla bind àdduna li nekk ci àdduna lan moo tax yàlla sàkk waaye lenn lu mu ci sàkk am na sabab sunu xam-xam mën na faa yegg mën na faa bañ a yegg waaye yàlla defarul dara pour hasard lépp loo gis ci kaw suuf sunu borom subhaanahu wa taala sàkk ko am na lu tax mu sàkk ko léeg-léeg ci ñun suñu xam-xam nga gis lenn ngay laaj sa bopp waaw lii lu mu fi def waa lii ndax jaroon na ko lii ndax matoon na ko lii ndax nangam lii ndax nangam ah kay ci xam-xamu sunu borom subhaanahu wa taala moom xam na lu tax mu def ko fi. waaye yow yow yaa amul capacité peeg am xam-xam lan moo tax yàlla defar lii maa ngi doon joxe benn bis misaal ci benn gunóor bu tudd joxlaan gunóor boobu soo demee kaw ga wala nit kaw ga ci gën a gàtt nan lañ koy woowee xam ngeen nu mu tudd mbërëngaan mbërëngaan lan lay bërëng ba ñu teree ko mbërëngaan ay ginnaaw kër ay dem àll ba su nit ñi demee foofu àll ba pare ba dem moom yàlla daf koy envoyé mu daal di ñëw lool noonu mu fekk mu jàllu da koy dagg di ko dagg di ko bërëng di suul di dagg di bërëng ba foofu place bi set kon gunóor googu lan la ko yàlla sàkkee mooy muy nettoyage environnement bi mu koy defar ba mu set moom fu mu fekk lu salte daf koy defar beneen bi mooy nëpp nëpp xam ngeen nëpp ku xam nëpp nëpp waxuma médd de nëpp laa wax médd après lu ciy tegu mooy nëpp yàlla moo ko sàkk la moo tax yàlla def nëpp am su médd amee après nëpp lu tax xam ngeen xikma bi imagine leen waxuma sax rabu àll yi mais doomu aadama bu fekkoon ne du nëpp su deewee du décomposé wu noonu lay mel ngeen defee ne ko ñun dinañ toog fii ah lu tax duñ fi toog ah kon jeex na kon duñ am fuñ sax duñu am doo am sax foo dox kon ci kaw nit yi ngay dox waaye yàlla moo def xikma moo tax rabiatil adawi di wax sooy dox ci kaw suuf si bul bonde yëgal ne yaa ngi dox ci ay armeel ci ay nit yu dee ngay dox sooy dox ci kaw suuf si mu ne bul cëppi cëppi ci ay nit yu dee yu ñu suul ngay dox seen kaw xala àddina bi depuis aadama ba léegi ñaata nit ñoo fi dee ñooñu ñëpp tey bu fekkoon ne ku dee rek ñu teg di leen di leen tegale di leen tegale di leen tegale kon àddina bi xat na waaye ci xikma yàlla tabaraka wa taala do nit ak lu mu mën a doon su deewee bu ñu ko dugalee ci suuf quelque temps mun a su deewee bu ñu ko sànnee ci àll bi quelque temps mun a décomposé wu soo ko fa fekkee soo fa ñëwee dootoo ko fa fekkaat même bu dee yax yi day seey yaramu doomu aadama bu ñu ko suulee ci suuf cër yëpp day seey ba mu des ba mu des juróomi yax ba mu des juróomi mbir moo dul seey ci yaramu doomu aadama wey yi du seey day continuer di dund kawar gi du seey kawar moom suul mënulu ko dara kawar boo ko suulee day continuer di dund kawar lan moo ko mënal dara lakk rek soo ko lakkul boo ko suulee tamit day continuer di dund ak lan yax yi du yax yëpp de yaxu yamar kiij bi moom la olof yi naan yaxu yamar kiij su ñuy defar gaal ñuy defar gaal gis nga gaal bant yëpp dinañ yàqu ba mu des bant boobu lu mu yàgg yàgg yàgg bant boobu boo yee da nga ko fay fekk mooy nekk archive gaal gi mooy bant bi nekk ci digg bi jóge ci bopp bee ñëw ci bopp bi ginnaaw gi bant boobu du seey du yàqu mooy yaxu yamar kiij ginnaawu nit yax boobu même buñ ko suulee doomu aadama yaram bi yëpp yax yi danañ seey ba mu deex yax yax boobu kon sunu borom subhanahu wa taala moo sàkk àddina moo sàkk mbindeef yi lépp loo gis ci kaw suuf yàllaa ko sàkk waaw léegi su fekkee yàlla sàkk li ngeen di gis ak lu ngeen gisut yàlla sàkk àddina bi moo ko moom est-ce que dana dagan ñu ne sëñ bee sàkk yàlla ba pare ne ko bu ma ci feeñ wala yéen déggu leen loolu déggu leen ci Sénégal ku taxaw ne sëñ bee sàkk yàlla ba pare ne ko bu ma ci feeñ yéen dégg ngeen loolu déggu leen ko dégg ngeen ko wala déggu leen ko ndeysaan gars yi dañoo ragal bi dañuy ragal wax sax dégg na dégg na dégg ngeen waa ji taxaw ne sëñ bee sàkk yàlla wala déggu leen ko waaw léegi sëriñ bi sàkk yàlla ba pare dee bàyyi fi adduna bi nit ñi xiif di mar ah léegi loolu ci lan la bokk sàkk yàlla ba pare dee yàlla moomu nga sàkk moom continuer dund yow mi ko sàkkoon nga dee est-ce que loolu xel nangu na ko ah waaw kon du wax wi du wax bu yenu maanaa waxu reewande la waxu ku amul tawhid la waxu ku jàngul diine la waxu ku réer la waxu jaahil la yàlla moom moo sàkk waaye kenn sàkk ko yàlla moo sos te mooy delloo mooy dundal mooy rey yuhyi wa yumiit wa ala kulli shay'in qadir waaw yàlla moom lépp maalik kulli shay wa huwa malik kulli shay moo moom lépp ba pare moo ko gouverner lépp ci loxoom la nekk lu ko neex ci coobareem mooy am ci àdduna bi parce que moo ko sàkk su ko neexee mu tàng bu ko neexee mu sedd bu ko neexee mu tàng jër ba pare asamaan si di taw bu ko neexee léegi mu muy taw fii tooy fii wow koŋ wala gis lan loolu ah yenn saa yi ndox dàqee la pikin nga ñëw ba fii ne waaw ñu ne la lu xew nga ne feede ñëpp lab nañ ñu ne laa ñu ne fii mu ngi nii ah lu tax taw bi yegg siwul fii ah lu tax fii may wax ak yéen ñun ci ban ban moment lañ nekk guddi am na ñoo xam ne ñu ngi ci bëccëg am na ñoo xam ne balaa ñuy gis bëccëg ñaata weer ah six mois am na ñoo xam ne balaa ñuy gis guddi ñaata mois te loolu yëpp yàlla moo ko def jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu faalun lima yurid laa yusal amma yafal wahum yusalun kon yàlla tabaraka wa taala du moroom mais boroom la ku ñu war a xam la ku ñu war a jaamu la te ku ñu war a kennal la waruñu ko dendale kenn wala lenn parce que yàlla du moroom ñaareel bi mooy taqrir mabdaul baasi yàlla daf ñuy saxalal ne dekki dafay am alaxira laa budda dañuy dekki baada taqrir al uluhiyati lillahi taala moom yàlla daf ñuy xamal ne bu ñu deewee laa budda laa budda amul ci ñun ku amul pexe lu dul di nga dekki taxaw ci kanam yàlla waaw su la neexee su la naxaree ni nga juddoo indi woo sa bopp nga dund ci àdduna dundaloo sa bopp ngay dee munoo téye sa bopp ci dee noonu la la yàlla di dekkilee indi la ci kanam ci ñun ñi toog fii ci biir jumaa ji ci kaw ak ci suuf ñiy dégg ñi ci biti ngeen jege si ndax ñeneen ñi buñ ñee mën a toog fi sabilillah ngeen jege si jege si leen ngeen defar jotaay bi ñeneen ñu mën a toog ma ne ñun ñu nekk ci biir jumaa ji kenn ci ñun bi muy juddu ndax dafa def demande mu ne yàlla damaa bëgg a juddu nang ma nang ma naa naa juddu nang ma def ku ñuul nang ma def sénégalais nang ma def nang ma def kan ci ñun fii moo def demande ah kan ci ñun fii bi ngay dund da ngay def demande ngelaw kilo ñaata kilo ngay dund ngay noyyi day malaaka bi peeseel la sooy wax ñaata kilo nga war a wax malaaka bi nattal la ndeysaan ci jamono corona bi nii benn ji benn benn benn màgget France màgget dañ ko xool ñu ne ko yow dangaa corona te léegi pour nga dund il faut nga fay ñu defal la benn machine bu lay defal oxygène ngay noyyi sinon da ngay dee rek mu jooy jooy yu métti ba hôpital bi ñi ko doon encadré di ñoom tamit simi seen masque yi di ko xool ni mu jooyee ñoom tamit ñu am yërmande ndeysaan ñu jooy kenn ñëw ne ko "Eh, lan la mu ne ko ah man kat damaa jaaxle boobu ba léegi maa ngi noyyi ngelaw yàlla fayu ma tey ma ñëw ma yéen war a noyyi ngelaw bu ndaw bi rek ngeen bëgg maa fayloo ñun ñi ci biir jàkka ji kan moo fi mu ne naan mos a noyyi ngoon ba ngoon ñu indi la facture nga fay ah ah pourtant sa portable bi pour mu wax foog nga am crédit foog nga foog nga foog nga fay ah soo duggee ci oto jàmbur foog nga soo duggee ci avion foog nga soo duggee ci bato foog nga ndeysaan soo duggee ci restaurant jàmbur nga lekk foog nga allahu akbar yaa ngi lekk bu la yàlla waxoon balaa balaa bëñ yi di yëngatu làmmiñ bi di ko tourné ndox mi ci biir di ko roose muy mokk foog nga fay boo bëggee nooyi mu ne foog nga fay nga bëgg a xool ñu ne foog nga fay nga bëgg a wax ñu ne foog nga fay nga bëgg a yëkkati loxo ñu ne foog nga fay boobu sax dafa bëri nga bëgg a dem duus rek yàlla mu ne déedéet non non non non taxawal foofu yi biir fayal pourtant am na duus yoo xam ne booy dem da ngay ah boobu sax dafa bëri boo bëggee tuur ndox da ngay allahu akbar boo bëggoon dem duus yàlla mu ne rek foog nga fay tey duus boobu boo ñoon génn boo demee hôpital foog nga fay pour ñu ndox moomu saw yooyu bu pour mu génn tey bu bañoon ñu yenu la léegi léegi yóbbu da ngay est-ce que dañ koy génne gratuitement foog nga la ilaha illallah lii lépp yàlla mu ngi ñu koy may kenn fayul war nañ koo sant kon wala waruñu koo sant war nañ koo bàkk wala waruñu koo bàkk war nañ koo kañ wala waruñu koo kañ war nañ ko bëgg wala waruñu ko bëgg war nañ ko gëm wala waruñu ko gëm ah kay waaye lu tax lii lépp am ñu romb ko faalewuñu yàlla c'est parce que dañoo am dooful iman dañoo am dooful iman mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala dafa def ne la budda taqrir mabdaul baasi il faut ñu xam ne danañuy dekki ëllëg danañ dee danañ dekki sikk nekku ci ku yaakaar ne doo dekki da ngay nax sa bopp zaama alladina kafaru an lañ qul bala wa rabbi la tubasunna duñ ci yem de summa la tunabbi'unna bima wa zalika ala allah yàlla nee na giñ naa ci sama màggaay di ngeen dékki dinaa leen dékkil su ngeen deewee dinaa leen dékkil du ma ci yem de dinaa leen dékkil ba pare wax leen li ngeen nekke woon ci àdduna te loolu lu yomb ci man la loolu lu yomb yàlla la fii léegi-léegi ñu nekk ci biir jàkka ji ku fi def dara buñ tafsiree ba pare ba julligee ba dem ba benn waaye ne def nañ ma fi dara sàcc nañ sama portable wala jël nañ sama nangam c'est facile ñun 30 secondes ñu xam ñu xam kan la wala ndax caméra surveillance yaa ngi nii di tàkk di xool dañuy dem arrière léegi bande bi gis la ah waa doomu aadama bu mu nee defar caméra surveillance wala mu defar benn film vidéo waa ji dund ba dee ñuy tegaat ay vidéo muy def ay conférence di football di dugal ay bii di teg dënn di dóor muy dugg te dee na bu yàgg mais vidéo yaa ngi archive di yenu ba ci kaw di dóor ci suuf waaw yàlla moom yorul suñuy vidéo xanaa ah yàlla yorul suñu cliché cliché da ngay photo wu léegi benn photo photo bi rafet nga may ko sa benn xarit mu dem photo bi réer wala mu yàqu mu ñëwaat ne la yow photo bi ki est-ce que damaa bëggaat photo bi est-ce que da ngay soluwaat même yére demaat ci même studio taxawaat ci même place ne ko photo ma nooy def boobu sax dafa tuuti xoolal tey whatsapp yi rek da ngay def benn photo envoyé ko ñaata nit ah ñaata nga koy envoyé ah kenn ne la eh booy vidéo fa kii bi photo bi dafa effacé waay nga jamaat ko ko mu naat effacé waat na nga jamaat kon yow da ngaa denc yu bëri xanaa allahu akbar kon yàllaa ngeeg suñuy photo suñuy cliché bu laal boo dee bañ dugal la ci suuf si nga suuf si lekk la yàlla mu ne la jógal taxaw nga ñëw mu dugal la safara safara lakk la ba nga xam kañ ba yaakaar na jeex na mu indiwaat kenn mu indiwaat la nga taxaw bu fekkee doomu aadama moo mun defar nit mu bëree bëri ay jëmm ki defar benn marque oto mu defar ci ñaata ah ñaata modèle ki defar benn jakarta mu defar ci ñaata ki defar benn marque portable bi ñaata la defar ah waaw yàlla defar doomu aadama bare doomu aadama taxaw naan yow yàlla man bu ma deewee mënoo maa indiwaat ci suratu yaasin yàlla mu ne awaram yara insaan anna xalaqnaahu min nutfatin fa ida huwa xasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya xalqa qaala man yuhyi al izama wa huwa ramim yàlla mu ne xoolal doomu aadama man yàlla ma sàkk ko ba pare mu taxaw naan waay est ce que man bu ma dee ba say yàlla mun na ma defaraat wa nasiya xalqa mu fàtte ne maa ko bind yow Muhammad waxal ak waa jooju qul wax ko lu ci yàlla teg ah yuhyiha alladi ansaaha awwala marra wa huwa bi kulli xalqin alim yàlla mu ne man mi la bindoon commencement depuis nekkoo dara nga nekk ndox nekk ci sa ndiggal baay ma génne ko jël ci sa yaay ndox jaxase ko denc ko ci sa ruxumu yaay xalqan min baadi xalq fa jacalnaahu fi qaraarin makin ila qadarin maalum fa qadarnaa fa nicma alqadiruun ma denc ko foofu ba judd jot ñëpp sonn kenn mënu ci dara ñu waa kër gi sonn ñu daw yóbbu hôpital waa hôpital ñu ne na toog foofu ñoragul mat bi ñoragul da ngeen a gaaw a ñëw delloo leen ko loolu la sage-femme yi réew yi di wax waaw nga dégg paa bi daal ne dimbali ma ngir yàlla yow tamit kii mënuñu ko delloo xanaa gisoo ni mu mel ndaw si naan ah yaa latiif yàlla ñëwal bul yónnee laa ilaa nga dégg waa ji naan ko tuddal yàlla tuddal yàlla mënuñ ci dara gis nga de nit ñi bu ñu lekkee ba suur rek la ñuy réew làmb seen poos yi gis ci dara yor seen kii di jaagar jaagari koo xam ne waaye ba affaire yi méttee ndeysaan nga dégg waa ji bu ñu ko nee tuddal yàlla nga dégg bu daal laa ilaha illallah laa ilaha illallah du wax sax laa ilaha illallah parce que xam ko laa ilaha illallah laa saalit commencé saalit laa ilaha illallah allahu akbar yàlla du moroom de li gën a tuuti ci ci doomu aadama bindam li gën a tuuti ci cëru doomu aadama lan la bëñ su ko yàlla yëngaloon léegi rek fi nga toog bu yàlla yëngaloon bëñ bi rek lan la kañ la commencé met xam nga garab wax jeex na nii rek suba nga dem hôpital boo demee docteur bi ne lu lay met gis nga moo gën a tuuti bëñ moo gën a tuuti kon doomu aadama warul yëpp yàlla la moo tax ñu yëpp yàlla pourtant fi ngay def lu bon ak di cëppi cëppi ak di daw di kër kër yi yàlla mu ngi ak yow benn mbir boobu bu ko laaloon rek leen nga toog wala waaye mu bàyyi la rek ndeysaan di la seetaan ndeysaan xam nga lu tax xam nga lu tax doomu aadama dafa yàkkamti yàlla moom as-sabuur yàkkamtiwul doomu aadama nag yàlla wax na ko doomu aadama dafa yàkkamti xuliqa xuliqa xajula doomu aadama dafa yàkkamti yàlla moom yàkkamtiwut ndax xam na wiiri wiiri wiiri wiiri jaari ndaari yàgg yàgg yàgg yàgg yow ci yàlla ngay teeraat kon sunu borom subhaanahu wa taala xamal nañu ne danañ dekki waaye xamal nañ ne moom mooy yàlla saxal na ne moom kenn mooy yàlla amul keneen waaye xoolal tey Sénégal foo tourné dégg yàlla diw yàlla la sëñ bi yàlla la sëñ bi yà- yàlla la yàlla am na ndey ak baay yenn saa ngi ne yow yaa yàlla ngeen saa nga dégg ñun ay yàlla lañ ñun ay yàlla yàlla lañ man ye daayira yàlla yàlla nga dégg ñu romb ñu ne yàlla yàlla yaa ngi ne yàlla reewande googu rek yàlla yàlla amoon naa benn jarbaat bu bokk ci loolu mu feebar ndeysaan ki gën a tuuti suñu kër ci jarbaat yi léegi comme feebar na sonn na sa ruuj mënatul taxaw ñu yëkkati ko di ko yóbbu daal nag jël taxi di ko yóbbu daal benn xale bu ndaw ñu ne ko ah yàlla buy feebar ah yàlla baa ngi di daa feebar kër gi yëpp xoolal nit ñi dañoo tiit de mais ñëpp di ree parce que wax na dëgg xale bu ndaw la kat te xale bu ndaw moo ñëw xool ko ne eh, yàlla bi daa feebar yàlla buy feebar bu ngi di yàlla dina feebar hmm? Hmm. yàlla dina xiif moo tax dañu war a defaraat pas-pas yi jàpp ci alxuraan ak sunna bàyyi caaxaan yi nit mënul nekk yàlla isa isa isa ak yaayam isa ak yaayam ba gaa yi ne yàlla lañ lan leen la yàlla wax kaana yaakulaani taam ñoom de dañ doon lekk loolu loo ci dégg kuy lekk boo lekkee ba pare boo ñibbee léegi tafsir bi jeex sa soxna tegal la baase salte boo am ñeeg beeg tiga dege nga dóor ba ñu indi la ndox nga naan ba ñu tegal la ci yaawur nga naan nga tëdd nag jaaxaan nga naa wax kii kan la kii taxaw sama kanam kan la ndekk sa biir bi moo ngandul nga kan moo ma tiim nii nga naan sa soxna kii kan la mu ne la kan nga ne ko kii mu ne la kii sa biir bi la nga tëdd ba minuit di nga xam ne doo yàlla ba biir bi cere ji ak kecceex yooyu nekk foofu ñu ne gurr ma andoo wana allah ma andoo wana allah waaw tey na kaa bii doo kaa allah ma andoo wana allah yàlla nag bul ne guur nga ñëw fekk am na ku nekk foofu Eh, allahu akbar ñeenteel mooy laa yambagi al igtiraaru bi ihmaalillahi taala li ahli lmaasiyati yellul nit waru gis nga ñiy def lu bon da ngay gis benn waaye ñu ne góor jigéen la kii drogué man la kii nangam kii nangam xaalisam di yokk muy gën a nekk bandi di gën a nekk saay-saay muy gën a bu def lu bon ah loolu bu mu la war bul yaakaar ne kii yàlla da ko mënul dara wala yàlla da koo fàtte déedéet jàngeen ci suuratul suuratu taariq feewu aay yi lan la yàlla wax ah wa mahilil kaafirina amhilhum ruwayda wa mahilil yàlla extra extratise la tëral da ngay nekk ak saay-saay nekk ak band yàlla di la may kàttan di la may doole gisu am na am na band yoo xam ne ay sëriñu band yoo xam ne dañuy jël benn téere yëkkati ko ba ci kaw ne zaaj téere bi ne la am su neexee yàlla bu ko naqaree lu ma la wax day am ndax banditisme te boo demee loolu ñu la wax mu am parce que yàlla moo leen di moo leen di jay parce que jay la jay jay waaw léegi nag yow boo ci réeree nga defa ne kii ah fekk yow xamoo xamoo loolu doomu aadama waru cee waru cee teg tànkam bab waru waaye ñii yéeféer yi ñoo ñu ëpp xaalis te ay yéeféer lañ ñoo ñu gën a lib si ay dëkk ñoo ma ëpp alal ñoo ma gën a ñoo ma ëma waaw loolu yàlla moo leen tëral ay nattu yow mi amul yàlla moo la nattu kenn ku nekk yàlla di xool naka ngay def loolu bu mu tax kenn ci ñun waru mbokk jullit yi incha allah bismillah ñetti aaya yooyu njàngat yooyu lañ ci doon jël mooy aaya 6 aaya 7 aaya 8 ma bàyyi mbokk bi mu jàngal ñu aaya yi incha allah mu ngi tàmbalee wa huwa alladi xalaqa alsamawati wal arda fi sittati ayaamin wa kaana arshuhu alal ma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون baarakallahu fiik jazakallahu xayran dan nañ la yàlla fayal yiw sunu boroom subhaanahu wa taala mu ne wa huwa allazi moom yàlla mooy ki nga xam ne li ñëpp war koo xam mu war a leer ci ñëpp yàlla mooy ki nga xam ne xalaqa moo sàkk moo bind asamaawaati asamaan yi wal ard ak suuf fii sittati ayyaam ci juróom benn fan allahu akbar yàlla jalla jalaaluhu azza kamaaluhu moo sàkk asamaan yi mu sàkk suuf waaye fi sittati ayaamin ci juróom benn fan waaye ndax fan yooyu mbokk yi mbokk fanu àdduna benn lañ ah fan yooyu ak ndax fani àddina laa wax benn lañ inna yawman inda rabbika ka alfu sanatin mimma taudduun yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu benn bisam xam ngeen ñaataat la ci ñun junniyaat mooy benn fan ci yàlla laa ilaha illa allah junni at sunu junni at mooy benn fan ci yàlla kon fii ku fi am téeméeri at ñaataat nga am ci yàlla hmm? ah looloo tax doomu aadama yi da ngay gis ko am téeméeri at ci àdduna mu dee ñu suul ko malaaka yi fekk ko ci bemmeel ne ko ñaata at nga am ci àdduna ñenn ñi ne lam yalbasu illa ashiyatan kenn ne man ngoon laa ñëw rek dee ashiya mooy ngoon yii te kooku am na fi téeméeri at malaaka yi ne ko yow ñaata nga mu ne wallaay man kay ngoon damaa ñëw rek dee ngoon damaa judd rek dee ñu ne ah mu ne waaw ñu laaj keneen ki ne ko yow mu ne man duhaaha benn yoor yoor rek diggante 10 heures ak 11 heures rek ma dee ñu laaj ci am ñaar téeméeri at ci àdduna ñaataan nga am mu ne lam illaa yow man aw baada yow man benn jour laa fa am benn jour xam nga yàlla lu mu wax mu ne fas alil aadin laaj leen mathématiciens yi ñu calculer junni at yàlla ñaata fan la fii ñun suñu junni at mooy benn fan ci yàlla kon fii ku fi am 70 ans 80 ans nangam nangam ñaata at nga am ci yàlla ñaata minute ay minute nga am moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne àdduna amul valeur su amoon valeur yéeféer du fi naan guuxu ndox inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'uddun kon doomu aadama fan yu ndaw yi mu fii def fan yu ndaw dañ laaj yonent yàlla noox noox noo gisee àdduna mu ne mu mel ne benn kër ñu ne ah bu am ñaari bunt jàkka ji ñaari bunt la mu ne waaw mu ne nga dugg fii génne fii ndax loolu yàgg na kon fo bi fo jaru ko fi fàtte yàlla moo ko fi jarul benn soxna dafa gis benn xale bu góor bu ñuy suul benn waay ñëw ndeysaan ci wetu soxna si soxna saa ngi jooy mu koy muñloo naan ko muñal sa doom ji alhamdulillah yàlla def na moom gudd na fan am na xeet woo xam ne ñu ngi ñëw ñoom juróom fukki at la ñuy dund juróom ñaar fukki at juróom ñett fukki at ndaw si daal di noppi ne ko ah waamtuwaatal mu ne ko ñooñu juróom fukki at mu ne ko wallahi alazim bu ma fekkee woon jamono boobu benn sujjóot laa koy defal yàlla benn sujjóot laa koy defal sama boroom kon ñun yàlla tabaraka wa taala bi muy bind àdduna juróom benn fan la ko bind lu tax pourtant mënoon na ko defal benn fan wala mënu ko ah mënu ko ah mën na ko defal benn fan kon lan moo tax mu def ko juróom benn fan allahu akbar sunu boroom mooy boroom kéemtaan mooy boroom kun fayakuun moom moo mën daf ñuy jàngal organisation daf ñuy jàngal lu ñu am am pa kattan kattan am pexe am pexe ñu yëg ne dañoo war a organiser sunu dund waaye waruñu koo parax paraxee jëlee nañ ci hadisu Buxaari mu ne kaana allah yàlla rekk a fi nekkoon kaana allah walam yakun shay gayru amul lenn lu fi nekkoon lu dul yàlla yàlla rekk amul keneen amul leneen moom kenn cundug moo fi nekkoon mu ne wa kaana arsuhu alal ma gonganaayam gi tróonam bi mu ngi nekkoon ci kaw ndox mi mu ne summa xalaqa samawaat mu defar asamaan yi bi mu defaree asamaan xalaqa samawaati wal ard mu defar asamaan ak suuf wa kataba fi zikri kulli shay mu daa dem ci lawhul mahfuz mu defar fa lépp jalla jalaaluhu wa azza kamaalu kon borom boobu daa jara wekk daa jara moytu daa jara ragal ndax moom tabaraka wa taala moom moom lépp léppang ci kattanam ak dooleem lu doomu aadama mbëru mbëru mbëru mbëru ngand ngandalu ngand ngandalu lépp a ngi ci loxo yàlla tabaraka wa taala kaana allah yàlla rek moo fi nekkoon amul keneen ko fi nekkoon kon ñu naan diw moo sàkk yàlla bi yàlla nekkee fii ñoom wuñ nekkoon moo tax vraiment léeg-léeg da ngay xaw da ngay wax sax Macron wax na dëgg ndax Sénégal gi ñu ngi fi wax loo xam ne wax dëgg yàlla Macron waxu ko ndax Macron demul sax ci yàlla moom fu mu yem ah ah fii ñu nekk fii ci kuñ jëm ñoom romb nañ yonent bi de ñoom ña nga ca yàlla waaw di poñanteeg moom am na fi benn salaatu bu ñu naan saa wari dum sa poy di di jangwa naatan aljanna sa naatan aljanna poñ allah jogge daande wutte makko ah yéen yéen pël yéen a lool wona ko on mbiyata noon sa jaggi ɗum sa jangi ɗum janngo a naatani aljanna poñ allah jagge dande mutta makko allah poñeteɗo kenen ko mu ne dama gis yàlla mu ngi toog mu ngi yaru ah déggu leen lool ma gis ko dafa toog yaru waay Sénégal waay yàlla toog yaru mel ne bébé toog yaru mel ne ku ku kuñ ne toogal ne nga yaru lii liñ fii wax Macron sax waxu ko fii chaque jour boo xëyee di nga dégg dara lu lu bënn sa nopp su fekkee am nga imaan di nga dégg loo xam ne soo tiimoon lekk di ko lekk même mun la indiloon café def ci suukar sax du saf suukar ci ay wax yu bon yu ñaaw yu ñuy waxal yàlla di ko waxal yonent bi di ko waxal lislaam di ko waxal sahaaba yi di ko waxal diine te dara amu ci lépp ay fen la ak ay sos dara amu ci ku nekk rek bëgg a duufal li nga nekk bëgg koo ngandal wala bëgg a ngandal ki nga àndal kese kese amul leneen loolu nag xam nga lan mooy problème bi mooy nun ñun ñi nga xam ne ndeysaan fas yéene wuñu dañ ñoo nar a nekk rek ay ay ay ay lan ñu ñuy diri ay ay sareet ñu ne ay sareet rek dañuy diri rek di ñu watat jàpp suñu tànkee rek di xëcc waaw fu ñu jaarale rek baax na loolu du nit loolu du jullit loolu du lislaam lislaam nit ki waroon nangu ñu lay diri ci yàllaa ko yonent rek mbir mi kenn moomu ko kan moo moom diine bi lan moo tax Sénégal ñu ne du doo ko doo mën a dund di lislaam lu dul nga am fi benn sëriñ lu tax yonent bi kan moo doon sëriñam Aboubacar Saddiq bi mu faloo bi mu taxawee def xutba lan la wax inni qad wullitu bikum walastu bi xayrikum falu naa de mais gënuma leen su ma defee lu baax dimbali leen ma su ma defee lu bon jubanti leen ma benn waaye ne car jaasi ji ne ko wallahi kii lañ lay jubantee mu ñu ñun ñoonu lañ meloon waaye ñun oto naam do deemo kanko hay ko oto naam do taa ko mo ko waɗi fof ko noon bu leen ko laaj moom lu mu def noonu la moom kenn du ko laaj luy loolu waaw dégg naa benn waaye dem julli timis ñaari rakk asalaam ñu ne waaw moom ñaar ki benn waaye ne ñaari rakk mu ne wuu bu laaj noppi yow du ma buggaal ko noppil timis ñaari rakk ba laam ñu ne ma ndax ma ne ko julli wu leen ba ma ngeen julli ñun xanaa suba ngeen doon fay ñaari rakk moom suba lañ ci xam waaw loolu mooy li am de timis ñaar raak non sëriñ bi la moom su defee dara kenn ko laaj xamul lu tax mu def ko ma ne daa xamul daa jàngul diine loolu kese la jàngul su jàngoon du julli timis ñaar raak bu la ñu sonal fii loolu kese la duñ jàng ba pare buñ ñëwee di réeralaate ñu ne kenn du leen laaj bañ a laaj li nga def dañ lay laaj foo ko teg yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu jullee julli ñeenti raak mu dem julli ñaar mu sëlmal dem toog fële benn waaye ñëw ne ko waa yaa rasulallah mu ne ko la mu ne ko jibril daa wàccaat jibril mu ne ko la la mu ne ko ñaar raaka nga julli yonent bi ne ah fa laaj ñu ña ña mu ne laajal gaa yi gaa waa gaa yi ne waa wax dëgg yàlla ñaar raaka nga julli yéen daal duggaat ci jàkk ji daal di julliwaat ñaar raaka yi fay ko loolu la waaw ah loolu mooy lislaam waaye moom lu ko neex mu def kenn du ko laaj loolu mooy la te yeneen bi mu doon def ñu koy laaj wala sallallahu alayhi wa sallam borom bi nee na jalla jalaaluhu wa azza kamaalu moom yàlla moo bind asamaan ak suuf fi sittati ayaamin ci juróom benn fan mu ne wa kaana arsuhu alal maa fi yàlla nekk arsh boobu moom mu ngi ci ndox sittati ayaam yooyu mooy dimanche lundi mardi mercredi lu ci tegu jeudi vendredi li mooy juróom-benn fan yooyu yàlla bind adduna bi mu ne wa kaana arshuhu alal ma is lam yakun qad xalaqa shay jamono boobu yàlla bindul dara min al maxluqaat siwal ma lu dul ndox kese moo fi nekk moo tax turunu yàlla bi ci kaw ndox mi la nekkoon xam ngeen arsu mooy lan ah arsullaahi maxluqaatu mooy mbindeef yàlla dafa am ars ak kursi yu ah ars kursi yu kursi yu mu ngi mu ngi nekk ci biir ars soo bëggee xam ars nag nu mu toll yàgg naa ko fay joxe misaal da nga yëg avion nga dem ba kaw asamaan nga tekki sa jaaro bii nga takk bii jaaro bii nga tekki ko ñu ubbil la fenêtre asam avion bi nga tëmbal jaaro bi mu wadd nga koy xool su jaaro bi daanoo sama jaaro bi lan la occupé ci taabal bi lu bëri wala lu ndaw ah dama leen di laaj jaaro bi lan la occupé ci table bi lépp la jël wala tuuti la jël ah noonu la arsh toll ci àdduna kursi noonu la toll ci arsh ni ars ëppee àdduna noonu la kursi ëppee àdduna kon yàlla nan la toll déggulee ma de ah yàlla nan la toll kon ars moo ëpp àdduna kursi fa yàlla nekk moo ëpp ars te ars moo couvrir kursi te moo ko ëpp te yàlla moo ëpp kursi yàlla nu mu toll xanaa déggu leen mu ne yàlla mu ne wasamaawaatu mutwiyaatun asamaan yi ñaata la yàlla mu ne dama koy lem téye ko sama main droite kon yàlla nu mu toll allahu akbar moo ne subhanahu wa taala maa qadarullah xaqa qadri wallaay màggalu leen yàlla du ngeen ko war a màggalee asamaan yi nu mu toll suuf nu mu toll yàlla mu ne dama koy lem téye ko te benn loxo laa koy téye bi yaminihi loxo droite yàlla ñaari loxoom yëpp droite la kon yàlla nan la toll kon yàlla du morom pourquoi ñu koy yeb benn wa borom xam-xam tukulóor mu ne allah so hulaaka jola wan nani oɗon pulaar owi allah so hulaaka o jola yàlla buñ ko ragalul def koo neex waaw kon yàlla du morom moom yàlla subhanahu wa taala mu bind arsh mu ne yàlla def na loolu li yabluwakum ayyukum ahsanu yàlla def na li pour mu nattu leen ana kan ci yéen mooy rafet jëf yàlla dafa bëgg jëf ju rafet tabaraka allazi bi yadihi almulk wa huwa xalaqa almawta walxayata li yabluwakum man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan chaque jour doomu aadama dafa war a def lu rafet alxasan lu rafet yonent bi saa sallam nee na bu ngeen di rendi sax na rafet sahaaba yi ne ko rendi nu muy rafetee mu ne ngeen ñadd ko ngeen ñawal paaka bi mu gaaw a dee inna allaha yuhibbu ida amila ahadukum amalan an an yutqina yàlla dafa kenn ceen buy liggéey sax mu def ko mu rafet ndax yàlla lu mu def dafa rafet yàlla defarul lu ñaaw yàlla lu mu def lépp rafet ku bëgg a xam ndax yàlla def na lu ñaaw xoolal sa bopp wa fi anfusikum xanaa yéen xoolu leen seen bopp xoolal ndax ni la yàlla defaree dafa ñaaw wala dafa rafet ni yàlla bindee nit dafa ñaaw wala dafa rafet ah su fekkee dafa ñaaw sa nopp yi fan la waroon nekk kenn ci ñun fii na proposé fan la noppam waroon nekk foo bëggoon ñu defal la sa nopp yi yii nii foo bëggoon ñu defal la ko waxal fii baax na foo bëggoon ñu defal la bakkan bi foofu baax na gémmiñ gi foo bëggoon ñu defal la ko ah maçon bi bu lay liggéey yenn saa yi da ngay ñëw naan ko non fenêtre bi non bunt bi non lampe bi non contact bi ah wala téyër bi sax bu lay ñëwal yenn saa yi nga ñëw naan non dama bëgg mbub mi kii wala waaye léegi nag yow léegi bi la yàlla di defar léegi yàlla def na fii bët yi léegi yow foo bëggoon mu defal la ko bismillah wax ñu fenn ñu xool ci sa yaram bi allahu akbar ñu ne gémmi ngi nga ne noodo gémmi ngi daf ko waroon def gémmi ngi koo wannooɗo ko fonnoode wadde ɗum e hoƴƴudu ndu caggal fii ci ginnaaw fii soo dankee nga ne nii ba jàng ne nii kon du sotti de bët yi soo bëggee xool ndeysaan da ngay da nga naan nii rek xool allahu akbar soo bëggee wax xoolal nopp yi di dégg amul kubéer su fekkoon ne nopp yi day tëju pour nga dégg foog ñu ubbi ko moomu taxaw nga ne nii gémmiñ gi boo bëggee wax foog nga ubbi fermeture bi bët yi nga dindi fermeture yi xool coono googu allahu akbar fi mu nekk nii boo bëggee def dara ay contact la rek yoo xam ne day dem xel mi day xalaat ne war nga def lii rek mu ne rek rek rek rek nga def xoolal booy dox da nga yëkkati tànk bi boo koy teg sax doo ko yëg sooy wax wax bi muy génnee doo ko yëg booy noyyi ngelaw li du dugg du génn doo ko yëg voilà allahu akbar jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yàlla tabaraka wa taala li mu def yëpp dafa rafet yàlla musul def lu ñaaw te du ko musa def moo tax mu ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amala wala in qultu innakum la mabuusun min baadil mawt yonent bi nee na yàlla nee na su ma leen waxee ne di ngeen dekki ginnaaw dee la yaqulanna allazina kafaru in hadha illa loolu de ay njabar la rek ginnaaw bu ñu deewee danañ dekki loolu de ay sóob la rek ku dee doo dekki loolu la gaa yi di wax fii di bu ñu deewee jeex na ke dara du xew ginnaaw dee ah kay ginnaaw dee am na dekki dafa am dund am dee am dekki am fay ñeent yi ñoo am ku dund di nga dee ku dee di nga dekki ku dekki dinañ la fay li nga doon def sikk nekk ci moo tax yàlla ne ku mu wóor ne di nga dajeeg man bu yeboo nga def lu rafet yàlla bi mu ñu bindee waxul ayyukum aksaru amalan dafa ne ayyukum parce que aksar amul importance mbir mi su bëree te baaxut am na ñoo xam ne ni ñu sonnee xoolal waa yoo gaa yoo xam ne si timis la ñu bale mbedd mi lal ay basang takk ay rajo indi ndënd yi di tëgg di wër di tëgg di wër ba 5 heures du matin ñooñu sonn nañ wala sonn nañ ah ah sonn nañ li ñu def bëri na wala bëriwul yow da ngaa tëdd ba 4 heures du matin ñoom boobu ba léegi ñu ngi fecc ñu ngi yuux yo gudu dugg jógaru jóg di yuux yow nga tëdd ba 4 heures du matin sa portable sonné nga jóg sangu jàpp solu lal sa sijaada dóor ñeenti rakka toog allahu akbar wala yow lu tuuti nga def ñeent par rapport ñoom ban heure lañ commencé timis lañ commencé ba kañ gars yi julli nañ sax ñoom ñu ngi ba rëngër rëngër duguru dugur duguru dugur duguru dugur di tëb ku àndal ki ñu àndal lu la neex laaj rëgëj di yuux di yuux di tëgg ba bët set ku àndal ki ñu àndal lu la neex laaj di tëb rek yow ñaari rakk rek nga def ñeenti rakk xoolal yow li nga def nu mu tuutee xoolal ñoom allahu akbar yow xam nga dox ñu jël sa bos parce que yow dafa rafet ba pare li nga def loolu lañ la sant ñoom nag ndeysaan yal nañu yàlla yërëm moo tax mbir yi du lu bëri mbir yi lan la ndax li nga def moom lañ la sant ndax li nga def kan moo la ko def loo loolu lu am importance la waxoon nañ fi xutba bu passé suruutu qubulul amal yan sart la ñuy nangoo jëf borom bi nee na wala in axarna anhumul azab ay nit bu ñuy def lu bon ñu naan leen moytu leen moytu leen bàyyi leen li ngeen def lii mbugal mi yéex a ñëw ila ummatin maadud gis nga baatu umma moo tax fii alquran nu mu dangereux la ilaha illa allah firi alxuraan dara gën koo dangereux ci àdduna baatu umma ñaata yoon la ñëw ci alxuraan montur la de kalimatu umma ñaata firi la am ci alxuraan am na umma buy tekki lan xeet ah am na umma buy tekki milla mooy yoon am na umma buy tekki mudda diir am na umma buy tekki ay topp mbooloo mu la topp waltakun minkum umma foofu mbooloo la millata ibrahim wa anna hazi ummatukum ummatun wahid foofu lan la umma di tekki mbooloo la baatu umma fireem ñëw na ci yu bëree bëree bëri gis nga fii tey baatu umma lan la fiy tekki firiwul mbooloo de lan lay tekki fii diir temps lay tekki mudda mudda lay tekki diir mudda moo tax foog doomu aadama bi nga xam ne dafa bëgg a góorgóorlu pour jàng alquran mu góorgóorlu jege borom xam-xam yi pour ñu jàngal ko baat yi li muy tekki moo gën rek muy tërërër di dem loolu wóorul sunu borom subhanahu wa taala mu ne wala in axarna anhumul azaba bu ma leen tardelee mbugal mi mu yéex a ñëw ilaa umma gis nga du mbooloo ilaa lan temps benn diir bu ndaw maaduuda bu ñu xam la yaqulunna nga dégg nit ñi di waat naan maa yaxbisuhu waaw mbugal mi moom lu ko téye kii da doon wax ne bu ñu julliwul mbugal ñëw bu ñu jaamul yàlla léegi yàlla def ñu nangam ak nangam léegi ñun toog nañ fukki at ñoo ngi zibile ñoo ngi fecc ñoo ngi yuuxu dara ñëwul lu ko téye gars yi dañuy poser question lan mooy téye mbugal mi yàlla mu ne alaa yawma yaatihim laysa masrufan anhum haay wallahi bis bu mbugal mi ñëwee xanaa xamu leen dara gën mënu koo téye waa aad loolu lañ doon def mbëru ba beew naan lu ñu yàlla mënal ba mbugal mi ñëwee keroog soof na leen waa samuud loolu lañ doon wax waaye ba mbugal mi ñëwee xam nga lan moo tax bàkkaar garaaw nitu samuud yi ñaata nit ñoo rey gëléem gi
ñu ñëwoon ba kenn
nitu samud du samud la yàlla yónnee woon gëléem nga fa la yàlla yónnee woon saalix ah ah ñaata nit ñoo rey gëléem gi ah kenn ñaata nit la yàlla mbugal dëkk ba yëpp te kenn moo ko rey moo tax kenn buy def lu bon nit ñi noppi ñu toog fi naan dégg sëñ bee sàkk yàlla sëñ bee sàkk yàlla ñu ne pat ah yàllaa ngi nii yàlla toog na fee yàlla daa toog fee yaru ñu ne pat bu mbugal mi wàccee ñun ñëpp yàlla mbugal nu nit ñi bu ñuy def lu bon ñun dañ ko war a wax waaw gis nga xaw mu saalix ba xuddaat di rey gëléem gi ñoom ñoom ñu ne pat mbugal mi wàcc ñoom ñoom yàlla raase leen bàyyi fa kenn lan la leen yàlla waxoon lii naaqatullahi ah fa kazzabuhu fa aqaruha ñu weddi yonanta ba daal di jël gëléem gi cor ko moo tax boroom xam-xam yi ñu ne gëléemu saalix boobu ñu doon cor xam nga ba ñu nee saalix bu mu ñëwee ne leen man yonent laa yàllaa ma yónni dañ ko ne boo dee dafa am foofu ay gaa yu dangiral yu reew yu mel na ñu nekk fii ne ko boo dee yonent nga montagne bi na am doom montagne xoolal montagne benn waay moo ko ne boo dee yonent rek montagne bi na am doom dimbali ñu allahu akbar mu xool montagne bi tudd yàlla montagne bi di onk mel na jigéen buy mat ñu jekki-jekki mu ne pëf génne beneen génne génne benn gëléem gëléem googu foofu mu génn dafa tëdd matuk jur doom xanaa léegi mbir mi leer na lan moo leen waroon foofu ñu jébbalu gëm kii garaaw na de mais kii moo mun a njabar kii expert bu ngand la mu ne leen nag lii gëléemu yàlla la bàyyi leen ko teen bi mu nekk ci dëkk bi tey da ngeen di woor gëléem gi naan suba gëléem gi woor ngeen naan loolu mooy mbugal mi tey bu ngeen naanee gëléem gi day woor suba gëléem gi ak doom ji mooy naan yéen ngeen woor ñu nekk ci loolu ba jàll ñoo xam ngeen lan la affaire dafa soof ngir kii loolu amul dañ koy rey rey saali ne leen moytu leen bu leen indi seen bopp musiba gëléem gi yéen a ko laaj yàlla indi ko su ngeen ko laalee du du baax benn waaye bu tudd xuddaat nopp benn xale bu jigéen mu dem di seeti ko kooku ne ko pour nga takk ma foog nga rey gëléem gi boo ko reyee rek nit ñi noppalu suba ñu takk sëy bi mu dem jël jaaseem fekk gëléem nga fa muy nelawe ndeysaan càll ba mu tàmbali yaay ji cor tànk yi cor gëléem gu ndaw gi daw mu cor ñeenti tànk yi yaay ji daanu mu dàq ñu dàq doom ji mu daw jëm ca xeer ba mu génne woon ba mu ñëwee ba jub xeer bi rek xeer bi ubbeeku mu dugg xeer bi tëju moom la borom xam-xam bi naan yowmal qiyaam daaba boobu yàlla di wax ci alquran ne yowmal qiyaam balaa àdduna tukki daaba day génne di wax ak nit ñi ñenn ci borom xam ñu ne daaba boobu la yàlla di génnewaat. léegi nag rey nañ ko gàddu nañ tànk yi di zibilé comme ni gars yi def fii bu ñu yoree kub di yuux di zibilé jaar ci koñ yi ñiy dagg baat bi ñiy dagg yàpp yi ñiy yor geen gi ñiy yor tànk yi ñuy yuux ndeysaan dara xewul ñu xëy fajar jant bi génnut asamaan si lëndëm ah lu xew ñu toog yëfi mbóoy mi commencé allahu akbar ndeke mbir mi déclenché nañ ko bu yàgg lan la yàlla wax ci suratul xàq fa amma samud fa uhliku bi taaxiya gis nga ñële wa amma aad fa uhliku xoola foofu yàlla li mu wax mbugal moom nu mu garaawee uhliku bi riihin sarsarin aatiya saxaraha alayhim sabaa layaalin wa samaniyata ayaamin mu ne fatara alqawma fiha sar'a ka annahum ajazu naxlin xaawiya foofu suñu borom ni mu waxee mbugal mi kenn mënu koo nettali ba mu neex ndax nu mu graawee ñeene dañoo toog ba ci yàgg rek jibril yàlla yónni jibril jibril naaw ba ci ufuq bi xaacu leen fekk huit heures jot na ñii ñee dem nañ jënd café ñee ña ngay teg kinkiliba bi ñee ña ngay defar ndambe yeeg ton yeeg chocolat yi ñee dem nañ jëndi mburu jibril xaacu leen benn xaacu la leen yuuxu ñoom ñëpp ñu dee seen butit yi moo njëkk ci suuf ñëpp dee ñëpp tegaloo yàlla nee na nga romb kër yi nga gis ndeysaan kër yoo xamante ne amul ay nit tabax yaa ngi nii waaye nit amu fi lépp lu déggoon xaacu jibril bi da ngaa dee wow koŋ benn malaaka moo leen rey kon yàlla du suñ morom benn malaayika la yàlla yónni seen kaw bu yónni woon ñaari malaaka nag ñett nag kon moom bu ñëwaloon boppam nag benn buur dafa nekk ci àll jamono nawet muy dënu xiin xam ngeen dënu kan kan moo mës a dégg fii dënu dégg nga ko yow ak kan yéen ñëpp kon dégg ngeen dënu allahu akbar su ngeen déggee muy dënu xam nga leen yàlla dafa kontaan kon su meree nu mu war a mel dënu kontaan te yàlla la parce que lan lay indi ndox ndox lan la yërmande jàmm ah yàlla moom kontaan ndox di ñëw kon su meree nu mu war a mel laa ilaha illallah laa ilaha illallah te yàlla day mer de Moustapha Gueye Alaaji Moustapha Gueye bu muy firi suratul mudassir nee na yàlla mer na yonent baa ngi koy téye mu ngi naan yonent bi zarni wa man xalaqtu bàyyi ma rek yonent yàlla na yonent daal nee na yonent bi naan yàlla déet yàlla yàlla déet waaye yàlla naan ko zarni wal mukazzibin bàyyi ma rek ak borom xéewal yi uli ni'ma wa mahilhum qalila inna ladayna ankaalan wa jahiman allahu akbar ñan nañ yàlla yërëm mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala nee na bis bu mbugal mi ñëwee kenn gis nga mbugal bu ko yàlla déclenché kenn mënu koo dee maa yaftahi llahu linnaasi min rahma fala wa maa yumsiku fala mu ne wa xaaqa bihim ma kaanu yastahzi'uun dana wàcc ay xaaqa nazala wa axaata bihim dana wàcc ci ñoom ma kaanu la ñu nekke woon yastahzi'uuna di ko mokke keke keke kuku kaka di reetaan islam loolu ngay def tey nga gis jigéenu l'islam bu muuru sol ay gants muur kanamam def du nga gis gars yi di reetaan linjan noir xool leen linjan yi ah wala du ngeen gis loolu di saboté ak di reetaan ak di kekki kekki wala nga gis ndeysaan benn jou benn jullit bu rafet sol yére yi rafet nga gis gars yi di ree dégg naa benn waaye naan ñii ak seen yére yi ñoom nga xam ne amuñu sax ay mbasin gani laa sax amuñu ko lan mooy gani laa ak mbasin gani laa ak mbasin lan la ba pare ñoom sëriñ yooyu ñuy tiitoor est-ce que daan nañu sol gani laa ak mbasin lu ñu doon sol waaw est-ce que mbir mi yére la inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum kon mbokk yi dar subango ñu ngi jégalu kàddu yi salaamaaleykum wa rahmatullah